ñoom ma sargal maa ngi ciy remercier bu baax a baax dama bëgg leen wax né cérémonie bi lan moko waral ak kan moko ko bima togué ma toogee ba note bi ñëw bi nga xamné dañ may remplacer né notu Négandougou dama dem séti le préfet du département de Rufisque manako préfet yow yaay sama kilifa ci département bi man nak dama damay jam

lu ko commencé maire Daouda Niang Omar Mané Alioune Mar Albert Ndoye Abou Seck da Daouda Diaw mam Mamadou Moulay gor Gorgui Ciss Abdoulaye Lo Ndiagne Diop Doudou euh, Omar Omar Gueye Papis Diop ñoom ñëpp jàppal na man tey ak xool bu fees sax laay waxee parce que mën naa samay kàddu tey ay kàddu delloo njukkal lay doon kii di Thiam Faye euh, delloo njukkal bi dama koy commencé si sama bopp mais aussi service national bu hygiène tamit amel na njukkal euh, ki nga xamanteni ci si mooy Thiam bu dee li nga xamante ni sama wàllu bop la léegi maa ngi koy wax fi rek man bu may ñëw euh, service national d'hygiène je crois que matugul 2 ans sax quoi 1 an et demi la wara tollu xeyna ci août bi lay mat 2 ans bima ñewé aussi yalla def président de la république son excellence Macky Sall vraiment jox ñu ay équipement yu bari jox ñu ay produits jox ñu ay auto vraiment dooleel service des jeunes donc ba nga xamante si ñun rek ñoo déssone ci ci ci ñun rek ñoo déssone nak pour mëna jouer suñu partition à fond ci li nga xamante ne si mooy mbas ak li nga xamante ne si mooy problème hygiène de façon générale bu Sénégal euh, ci kaw lolu donc président de la république bu joxé mois yu mel non ça veut dire que ñuy xaar ñuy may bët mais ki nga xamante ne si mooy Thiam Faye moom moo ma organiser sortie ak matériel bi ñu président euh, de la République jox mu nek feulé ci euh, sangal kam té bob aussi le ministre Oumar Gueye ma nga fa mu nekkoon sortie bu am solo sortie bo xamante si man sama wala bopp euh, wo nañ ma de partout présidence de la République le ministre de la santé ñeneen ñëpp woon nañ ma di ma féliciter né vraiment li ngeen def ni baxna té lolu bu amé rek c'est parce que cham fay bi mom moko mo nek ci gannaaw organisation bu baax la fa def ba man mo meuna récolter dégg ma félicitation yépp ñëwaat naa fi une deuxième fois je crois que mooy avec les gaaru Thier waaw gaaru Thier bi nga xamante ne si mbas mi vraiment taroon na ñu waroon dugg fépp foo xamante ne si nit ñi dañ fay dajaloo pour di désinfecter yooyu mu nekkaat deuxième sortie boo xamante ne si loolu càmfe bi moo ma permettre ma génnaat pour mën a wax ak askan bi pour mën a en tout cas euh, wane vraiment li nga xamante ne si ñu ngi koy def ci xeexu mbas mi bu dee nag ci wàllu service d'hygiène nee naa aussi service d'hygiène service national d'hygiène dafa yoral càmfe njukkal man yàgg na bi nga xamante ne si ñaari nit rek laa xamoon service d'hygiène à part le colonel Moussa Dieng musa Dieng Sarr bi ñaari nit laa xamoon te lool du suma pour di ko wax. fu ma dem dama koy wax kii di major Alla Ngom moom laa xamoon ak caam Faye ñoom kese laa xamoon ñoom laa doon gis si télé yi ñoom laa doon dégg ci rajo yi ñoom ñoo doon fësal li nga xamante ne si mooy liggéey bu am solo bi nga xamante ne si service d'hygiène ñu ngi koy def te ragal naa ne sax euh, ci kaw xëy na moo tax peut euh, le président de la République.

tay it amoon ngant lool ndax euh, am na CDD bo xamni ñoo ko doon def ci mairie bi pour préparer le recensement général de la population mu doon lu am solo mais dama jox ngant wax sama adjointe mu dem représenter ma foofu ndax cérémonie bi mënuma ko woon a bañ a cérémonie bi nag lu normal la ci ci ni administration di doxee wala ko xam administration ni muy doxee ndax toujours chef de service fu nu ko nomee mission buñ ko jox la mu am app boo xam ni àpp boobu bu doxee dafay dem keneen remplacer ko donc c'est dans la vie normale des administrations publiques sant si kaw wax naa ko colonel nee naa ko perte la si service d'hygiène perte la si administration sénégalaise

gunge mu génn administration pertement la si ñun wax naa ko sànq ni maa ngi tàmbalee Diourbel boobaak léegi ñu ko man ci fukki at ak juróom si administration bariwul fekke naa lu bëri gis naa lu bëri waaye li ma gis ci Thiam Faye bariwul ci agent service d'hygiène yu ma ko gis donc su meloon neneen su meloon neneen foog naa ni tëngëj am na ku ko wax sànq foog naa ni war na noo mën a xam léegi ci sama fulla bu toll ni du ma seedeel kenn lu mu deful waxuma la seede mais bu meloon neneen bu ma woowee sax dama dul ñëw

liggéey boo ko sant benn tontu la am bien reçu loo ko sant bien reçu bala moo yàgg kala woowoon diis la soxla wala mu am lu mu la jàmbat dina la woo mu envoyé message ni ki ma boole dégg naa ko wala ñëw na fi. major man maa ngi doog a fekke cérémonie bu journaliste jël parole féliciter un agent de waxuma ne amul mais en 15 de service maa ngi koy doog a gis. te am na ku ko wax xamatuma kan la journaliste du raayal kenn diggi ginnaawam su fekkee ni la def wala la muy wax tegu ko ci yoon.